السلام عليكم ورحمة الله بكي نيلا ني دين زيار الحق بالحق ان بار نيان سبحانه وتعالى مبولي ني جغان ان يوسين دروس رمضانية رقم التاسعة المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات الأول أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم الثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفتر الثالث أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم والله أعلى وأعلم من المكار نمرو نوف كي أم جانغرو كي ويرو كار نفا أم نتخيت ونكي كي موي كي فابر تبو واري كارجي دوكو سونال تدو جلي لور كوكو دفا وار, وار. ñaareel ki bu dee koor gi da koy sonal te jëlewu ci lor su ko neexee bañ a woor ku ñetteel ki bu dee koor gi da ci jële lor kooku koor xaram na ci moom yàlla mooy ki xam lépp euh, mooy koo xam ni masala bi dafay jàngale ñi nga xam ne dañoo am ay jàngoro am na ci ñu may ñu woor am na ci ñu ñu may ñu woor jàngoro ji nga xam ni daf laa dal te mën nga ànd moom woor te du la wàññi dara daf la dal te mën nga ànd ak moom woor te du la wàññi dara kooku bu amee xamal ni koor war na la da nga war a woor bu ko ngoo koore ci jëlee benn lor kooku dafa war a woor keneen ki nga xam ne moom jàngoro bi ko bu wooree du ci jële benn lor waaye dafay metti ci moom masalan koo xam ne dafa am jabet nga xam ni koor du daanaka day metti ci moom lool kooka moom bu ko neexee dog bu dee leer na ko ni mën na mu jéem bu dee mënul mu bàyyi kenn du ne dafa war a dog par force déedéet moom mooy saytu mooy seet boppam rek bu ko attanee xayrun bu ko rek mu bàyyi ku ñetteel ki mooy ki nga xam ni moom dafa am jàngoro joo xam ni koor baaxul ci moom kooku dafa xaram ci moom mu woor ñu bàyyi ci xel baax ki am jàngoro bi nga xam ne koor baaxul ci jàngoro jooja mën na caa jëlee lor wu rëy kooku koor xaraam na ci moom laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha yàlla tegul kenn lu manul lislaam lépp loo xam ni boo ko defee jële ci lor loolu wàcc na la bu ko defee loolu mooy li tënk suñu jàng bindum tey yàlla defal dégg ak topp aqulu hada wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa barakatuh